Anyways.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 borom restaurant bu siiw bu mag boobu mu ngi ci turu Axdar client bi mu faat mu ngi ci turu Asasani li indi mbir mi nag bo borom restaurant bi faat client bi borom restaurant bee koy wax kannaaw bi ñu ko tegee loxo yóbbu ko ca commissariat bu Bel-Air borom restaurant bi ne client am bii di Asasani daf ko fekk ci restaurant ci kanamu jabaram tiim jabaram ci ko yekk lu mel ni xeme xas gu ñaaw mu xas ko ko bay dugg ci ay mars jabaram dem bay dugg ci vie privée borom restaurant bi nee na ko artu ko ba sonn waaye client bi bañ continuer sawaay nee na bi mu demee ba mënatu koo muñ la génnee gourdin bi door ko ko ba mu tëdd ñàkk bakkanam naa def moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graw korona la wax muqi ak jaayum yàmbaa ji léegi Sénégal mag ñi bàyyeetuñ ko ak gone yi ma ne mag ñaa ngi muqi njàmbaade moo leen gënal ganaar gu ñu njoñ la xew ca Koungheul romb na doy waar ab góor gu am juróom benn fukki at di ab commerçant moom daal moo fa soppi këram def ko béréb bu muy jaayee yàmba cey dépense naka noonu nag ci lañ ko signalé ci commissariat bu polis bu Koungheul kaa ñi daal koy teg choc këppatal ko le 18 janvier bi weesu booru vingt heures et demi ci la police daal di miine këram wër ko ndombo di opéré su opéré boobu bu ñuy opéré kër gi nag ci lañ gis jaabante bi mel ni tulaak màlli ci biir kër gi ku dugg sa morom génn yamba jaa ngay jar de naka noonu bi ñu toogee di opéré la ñu gis ñaari nit ñëw dugg paa bi génn di leen jaay yamba ci noonu la police dafee asoo ci kam ñaar ñamu doon jaay moom ne may daaw waaye góor gi ñu teg ko loxo police daal di dugg ci këram def perquisition fekk fa ñaari kilo yamba ak ñaari kornetu yamba ci kanamu enquêteur yi na góor gi nangu na ne yàmbaa ji moo ko moom mi ngi ko jëndee ci marché hebdomadaire bu commune bi ma ne wàcc day daanoo ci gën gaaw moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a korona la wax kii tamit ab góor gu am juróom benn fukki at la góor gi daal dafa fekkee ab l'accident boo xam ne benn waay bu yor scooter la ab 4x4 mbëkk ko janvier bi weesu ci booru 20 naka noonu borom tuteur bi daanu nekk ak mettitam góor gi nag ñooy di dimbali borom scooter bi ci la roccee saagu borom scooter bi saag bi nga xam ne defoon na ordinateur ak ay iPod kóor gi ne ko doñet dal di koy dem làq ba noppi dellu si waat ci borom scooter bi di ko toppatoo ko dimbali ba sapeur ñëw jël si ko yóbbu ko l'hôpital borom bi nag bi mu génnee l'hôpital gis ne saagam bu amoon ordinateur ak iPod yi dem na mu saisir gendarmerie heureusement fa mu daanu woon amoon na ay caméra surveillance di gaay superviser caméra de surveillance yi ci la ñu gis góor gi mu jël sac bi di ko yor ci benn béréb cey mim réew góor gi nag bi ñu ko convoqué ñëw na indaale sac bi waaye sac bi mu indaale amul ordinateur amul airport moom daal sac bu di la ñëwaale ma nekkoon na kin fëqul bënnul waaye ana yëfu yëfa nekkoon waay góor gi ñëw ci kanamu yi ne leen moom daal ab saagu kese la fa fekk gaa yi wax wax góor gi taxaw ne ab saagu kese la fa fekk góor gi nag li mu lay-lay yeyul enquêteurs yi ba tax fi mu ne góor gaa ngi xaar sooram <laughs> ma ne leen de lii mooy Sénégal dañuy fekke accident au lieu ñu dimbali ñi nga xam ne nii ña ngay waaj a ñii di sàcc ñii di dugal seeni loxo ca ña tëdd da bi seeni xaalis réew mi ñàkk yërmande gi jéggi na dayo mu doonoon seen xibaaru buzz dig daje beneen yoon ci yeneen xibaaru buzz